wa waaye nag procureur mujjee na leen a fekk si ndax procureur bu sigi coro nangu nañu jébbal leen seenum néew ngir nag ñu daal koy denc yéen a kaay gi délibération nee na njabootu Idrissa Goudiaby ñoom nag nee nañu ki nga xam ne moo njëkk a def autopsie bu njëkk bi kookee danañu ko daal di fa mbaxana doone benn yéen a gi de Les Échos nee na procureur bu sigi coro bi nga xam ne waxoon na ne dinañu amal ñetteelu autopsie ci Idrissa Goudiaby daan ñoo am hépatite ci Sénégal jamono ji ñoo ngi ci ay jafe-jafe yu métte métte ndax garab yi nga xam ne moom la ñu war a fajo ni ma médicament yee maanaam dafa cher ba maara détail jamono ji sax maanaam gis ko ci réew mi jafe na lool te fii ci Sénégal ñi nga xam ne ñoo amee wopp ji di hépatite bëri na lool ndax lu toll ci 9 pour cent ci askan wi ñoo ngi woyaale hépatite yéen a kaay gi de l'info bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci ali kalaj gi ali kalaj gi mooy ñi nga xam ne nag ñooy waa parti socialiste ñoom nag dañu leen doon tuumal naan ñoom daal maanaam li nga xam ne mooy campagne benn bokk yaakaar loole nag Aminata Mbengue Ndiaye daan na koy weddi ma ngi ci journal bi de l'info yéen kaay gi de Le Quotidien nee na coalition yi bëri na ñoo xam ne dañoo jóge ci coalition dem ci ay coalition ci biir campagne bi ñi nga xam ne ñuy waa bunt bi bëri na ñoo xam ne jóge nañu fa waaye tamit coalition naataange askan wi bëri na tamit ñoo xam ne jóge nañu fa ndax seen tête liste bi département bu Mbacké dem na ca benn bokk yaakaar coalition wàllu Sénégal bëri na tamit ñoo xam ne jóge nañ ca coalition boobee dem ci benn bokk yaakaar Dakar ku ci mel ni Mayoro Faye ak Cheikh Bara Dolly Mbacké ca Touba ñi nga xam ne nag ñoo ak coalition Benno Bokk Yaakaar ak coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag ñoo si gën a neex le ndax ki nga xam ne mooy Mary Teuw Niane moom nee na Yewwi Askan Wi lay jàppale waaye tamit Serigne Mansour Sy Djamil moom jóge na coalition Yewwi Askan Wi dem ca coalition Benno Bokk Yaakaar yéen kay gi di Vox Populi nee na tamit ca diwaanu Dagana foofee tedd liste bokk gis-gis ba maanaam moo dem Benno Bokk Yaakaar ca Dagana yéen kay gi di Rewmi Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu yooyee jamono moo jiite woon njàng mu kawe mi ci Sénégal moom nag démb def na ab vidéo nee na askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Saint-Louis nañu voteel waa coalition yeewu askan wi yéen i kaay gi ñu xëy fekk fa Fadel Baro jàmmi gox bi moom nag daat nay wax ne nañu sanctionné benn bokk yaakaar ci élection député yi mouvement nitu dëgg ñoom tim nee nañu nañu sanctionné ñi nga xam ne ñuy waa benn bokk yaakaar yéen i kaay gi di exclusif ñu xëy fekk fa Modibo Diop mi nga xam ne jamono moo jiite woon Azer moom nag nee na victoire benn bokk yaakaar ci élection législative vérifier leer na nañ leer na nañe moom Modibo Diop nee na askanu Sénégal jamono ji tànn nañ ba pare te ñi ñu tànn naka ñooy waa Benno Bokk Yaakaar yéen a kaay gi di critique xëy diñu xibaar naan ñu 48 heures chrono moo des a kaay gi di exclusif xëy diñu xibaar naan ñu coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñàkkee élection législative yi ci fi nga xam ne mooy département bu Rufisque bu mu bett kenn ndax nag Ndiagne Diop mi nga xam ne mooy maire bu Mbambilor xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar def tête de liste ca diwaanu Rufisque moom nag picc topp ko ndax moom Ndiagne Diop moomee da def caravane waaye oto yi sax ñoo ëpp nit ñi maanaam Ndiagne Diop délégation bi mu àndal rek rek moo ko topp yéen kaay gi di réew mi ko di jee ñu xëy fekk fa Aliou Ndoye moom nag jamono ji ma ngi def porte à ca diwaanu wakaama yéen kaay gi di L'As moom maire bu Dakar Plateau ministre bi ñu dénk wàllum pêche nee na ñi nga xam ne ñooy opposition bi lobby góor jigéen ñi ñoo leen di financer Aliou Ndoye moo ko wax nee na ñi nga xam ne ñooy opposition bu Sénégal seen coow moo bëri waaye nag lobi góor jigéen ñi ñooy jël xaalis di leen di jox yéen kaay gii de la mandat nee na njiitu réew mi di président Macky Sall ma ngi amal ay audience ci palais ba rek audience sur audience yéen kaay gi nee na palais de la république Macky Sall da ko mujjee sopparñe def ko permanence su APR ndax Macky Sall jamono ji naka maanaam ma ngay recevoir ay nit rek palais ba la sopparñi permanence su APR moom Macky Sall yéen kaay gii di vox publique xëy dañu xibaar naan ñu Ousmane Sonko nee na nag yi dem leen ngeen récupérer seen carte d'identité yi bu vote jotee ngeen dem vote ji Ousmane Sonko nee na képp koo xam ne bëgg ngaa sauver Sénégal na nga votel coalition Yewwi Askan Wi ñu am majorité assemblée nationale ndax nag Macky Sall Macky Sall def na bilan Ousmane Sonko mooy wax nee na Macky Sall def na bilan waaye nag bilan Macky Sall mooy dund gu cher gi bilan Macky Sall mooy inondation ci mi yëpp bilan Macky Sall mooy jël opposants yi di leen tëcca moom njiitul Pastef kaddu yi ma ngi ko xamle ca diwaanu Vélingara yéen kay gi de las xëy duñu ñu sa diwaanu Kaolack lu toll si juróomi junni yu fekk yegg juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ci carte électeur yoo xam ne ñoo ngi sa commission ya yéen kaay gi di sunu làmb xëy dañu xibaar naan ñu Balla Gaye numéro 2 combat bi ak Gris Bordeaux léegi tey mu accès waaye nag état de forme bu Balla Gaye 2 jaaxal na gars yi bare bare bare yéen kaay gi du l'observateur ñu fekk fa Omes Diagne nee na muy Balla Gaye numéro 2 di Gris Bordeaux mënatuñoo am force naturelle yéen kaay gi di sunu làmb Lac de Guiers numéro moom nag waxoon na Balla Gaye numéro 2 lu leer nee woon na ko la ñuy def ay